sant yi nii booy ñoo fi nekk quoi équipe bi moo fi nekkee sant équipe bi mais ñun sant équipe bi moo nekk Baba. donc joué hmm? waaw fii dafa bëri suuf fii dafa bari suuf quoi te booy boo xoolee ay xale lañu ret euh, suuf si moo moo tax pour lu mënagul a leer ba léegi suuf si pour suuf ba léegi te ñun terrain kekk lañ nekk terrain bu ñu nekk terrain kekk la quoi moo tax pour ñu football suuf si dafa am problème loolu la waaw tey renforcer nañu sax renforcer nañu tey parce que vétéran bokkul ak équipe yu senior yi bokkul tey dañoo renforcer tey dina ñëw parce que équipe euh, Kër Matola bi équipe bu équipe jeune la quoi bokkul ak vétéran yi moo tax moo xamante ne te il am suuf suuf suuf mooy suñu problème waaw euh, prochain match contre bi moo tax ma toog di suivre nii waaw moo tax ma suivre nii pour deux am 6 points 8 7 points ma dem quart de finale bi merci beaucoup. voilà euh, léegi sa forme joueur ah, bi rek xam nga comme début donc compétition bi nii noonu lay demee peut-être premier match deuxième match mais troisième match dañuy ñëw ku ci récupéré di nga dina ñëw waaw. ci am récupération normalement ci war nga mën a ñëw troisième match nga def match bu baax.

xam kam beren beren beneen kii la comme suppa kanjak maafe la rek boo bëggee nga dem ci maafe boo bëggee iya suppa kanja loolu la on kam odekaave comme première fois bi dem ñu ngi participé nii pour le moment di xaar résultat yi rek nañ ko def ci fair play boo gën quoi fair play waaw ok waaw mooy ñu nekk ay sportif nekk ay sportif quoi fii amul gendarme amul sapeur amul dara mais ñun ñooy nekk ay sportif ku nekk Jema a yaatal sa xol quoi boo yaatalee sa xol ñëpp mën a football parce que ñun ñëpp xamante nañu benn commune la loolu la merci beaucoup